ay ca Sénégal ku doon laajte supérette bu yoboo noppalu ndax supérette si ñëw na nekk Cambérène tali Njaga Mbay gën leen ko préciser nag fi nga xamante ni fa la clando yi di tourner maa la ko wax de supérette bu bees tàq la te am tawféex lépp loo xalaat nag ña nga koy jaay ci biir poulet viande jambon poisson lépp la ñuy jaay ci biir am na tamit gelato et biscuit am crème glace am Nutella biscuit lépp ñu ngi koy jaay ci boobu les supérette nee naa la ba tey ci wàllum jus am na lait maa la ko wax am na soow pur am na soow nag bépp xeetu boisson boo soxla it am na fa am na ay caakiri am na eau minérale foofu daal am na lépp dafa taw féexe ndax supérette Alfirdawsi la ñu ko tuddee ci wàllum légume tamit am na fa waaw waaw am na ca biir lépp luy xeetu légume rek am na fa ñoom pomme de terre rek et waaye lépp am na fa laa la wax ci biir ba tey moom li nga xamante ni moom moo di supérette si am na it li nga xamante ni moom moo di transfert d'argent maanaam multi service waaw waaw Wave Orange Money Kepa Western Ria gramme lépp am na ci boobu la supérette bu la neexee itam nga toog sa kër xoolal numéro yooyu di daw ci suuf nga def sa commande lu la neex gars yi livré la ko ba fa nga nekk foo mënti nekk nee naa la bi supérette bu bees tàqal kenn du ko am di jooy doo ko gis di ko wëri ka fa dugg jaaxaluma de ka fa duggagula ma yem gaay ñew leen way ñew leen xol li nga xamanteni ni modi di supret alfirdausi supret alfir nak la ma nga sedd guyi guyi guyi gis nga yow fofu bo fa duggé da ngay melni ku ne aljana yi fir ko climatiser ñak mom do ko fa indi do tet bo demon ci ba bayit ba ñak toy xip da ngay dugg rek sedd guyi féex ma fa ne amul feneen <laughs> cey le place maa naw alfirdausi dimbalante amna na solo ci jamono ñu rek mouvement Bidi di ànd qui s'active sur le social éducation et environnement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 d'ailleurs di koy poste sur page bi de social shopping immobilier beaucoup de fait y ngeen woote 77 417 77 40 ou le 33 835 08 67 ak social shopping immobilier jaay kër